الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم إخوتي الكرام مستمعون الكرام معالي العلماء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 waxtu wi démb bi ñuy tàqalikoog yéen yéen a ngi ñu doon topp rekk rek sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu yi toppoon ngeen ñu ca leer ga ba dara dul dara toppoon ngeen bi nga xam ne yàlla rek fi nekk tabaarakallahu di ko topp ba yàlla tibb ci leeram bind ko toppoon ngeen ñu tam na mu jaamoo sunu boroom ci faculté yi ko yàlla dugal yépp mu génn ci ak succès ànd ci ak prix excellence ngërëmal yàlla lu sax toppoon ngeen ñu tam ne ko yàlla rafaatale bind yépp ngay gis ci kaw àddina ak doo ooru àddina ndax innal awaalima aliha wa saafilaha planètes yi ya ca féete kaw ak ya ca féete suuf yépp ashiatun ay ceeñeer lañu ashiatun ay jeexitat lañu euh, talaat yu bàyyikoo min afdali nusami ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon lépp yàlla ngi ko bind ci leeru sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu borom ni ko xalaqtuka li ajli wa xalaqtul ashyaa li ajlika yow pour man nga waaye yeneen des yëpp pour yow lañu ku lànk ak ku nangoog ku gëm ak ku gëmul ku mu ci mën a doon lii la yàlla def wa anal fadla bi yadillah yutihi man yashaa ak kàttan ak xéewal yàllaa ko yor ku ko neex la koy jox te jox na ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam toppoon ngeen itam bi yàlla nammee mu nekk nit fi ko yàlla jaarale ci wàllu askan digganteem ak maamam ju baax jooju aadama alayhi nga xam ni ci wàllu aslu ci sababam ñëw ci planète bi ñuy wax terre mottali mission sunu borom subhanahu wa yàlla ngi ko jaara ci xeet woowu ñuy wax nit te ko ca jëkk muy aadama alayhi salaam kon aadama ki fi jiitu ci zahir wala ci baatin nag ñu ngi bind aadama ci leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mag ñi nga xam ne dañ doon yëg di wax bokkuñu ak ñun ñi nga xam ne yër di wax boo fekkee dangay yér di wax lu ñu bindul rek ñu ànn anal ko ci rawaaxoog Buxaari doo ko mën a gëm ndax foofu ngay refeeru mooy sa cëslaay dëgër na baax na waaye mag ñi nga xam ne dañ doon yëg di wax yér di wax suñu borom subhaanahu wa di leen dee ñuy def ak a wax ñooñu xam nañ ni moo Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi yàlla mi ko bind ci leeru boppam waaye bind nag yii fi yëpp ci leeru seydina muhammad sallallahu taala wa sallam mawlaana si xaj malik radiallahu taala anhu loolu la wax wa innahu is araada allahu nashatana abaana min nuurihi nuura nabil alamin kon nag mu ngi noonu innal awalima aliha wa saafilaha ashiatun talaat min afdali nusumi loolu si xaj malik wax mu ni uyuunal arwaaxi min ruuxil xudan bajasat fa innahu jinsu laala maadin sutumi yooyu yëpp ay firnde la fi aalimi lmulki wal arwaahu taabiatun lirruuxi wal jismi haasa xaayatul karami sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla dolli ngërëmam te yokk koy maqaama ak daraja te tas ci barkeem bi jaax sidna Muhammad sallallahu taala wa sallam toppoon ngeen ci xeet bi mu jaar diggante siis waxoon nañ leen siis mi nga xamante ni mooy wasila wasiyal as asl siis mi nga xamante ni moo yor ndénkaan la nga xam ni moom tabaarakallah ah, suñu borom subhaanahu wa taala moo ko bind moom siis mu jël ndono gi ci maam aadama alayhi salaam euh, ñu koy donnante di ko donnante di ko donnante ba xeet yàlla namm sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bokk ci mu ngi noonu ci muhammadun nuuru abdullahi loolu lépp déggoon ngeen ko dama lay fàttali rek ndax fàttali ndax bëkkaati dem ba léegi ñu ngi woon ci loolu kon jaadoona eh, ak pàttali ndax defaat mbëmbëstal pour yow mi doon déglu nga mën a jàppaat eh, forme pour mën a déglu bu baax li ñuy wax kon ñu woon ci ay maamam waaye lu ko jiitoon si xaj Malik dafa wax ni yaa xaysal baxri yow mi nga xam yaay xuus géej jaar ci nuur fitti wala ngay jaar ci kaw di jëm ca weneen wàll wa mu jaral laa fanaan guddi ak bëccëg di yendu di fanaan ci guddi yi di yendu ci bëccëg ya lil asdaafi ngir mën a xam maami nabi alayhi salaatu wasalaam Seydi Haj Malik nee na radiyallahu taala anhu nee na jaratu ko jaratu ko indi nekk na ci man fii ci Tiwaawoon man Haj Malik xaminu maami nabi woo xamante ni ala moo gën a wér ala moo gën a kawe ala moo gën a sell moo gën a xóot minal jalami ci nga dem xamee ji ko feneen jalam mooy arab ya jalam nag mooy xeet mooy xeetu or bi ne ci biir suuf yow mi doon géej di moom la lépp ni yow mi doon nuur ci biir géej gi si xaj ma sax yaa xaaidal bahr la bindoon yaa xaaidal bahri Mawlana Seex al Xalifa radiyallahu taala anhu doomam ju baax ja moo ko yóbbu mu jël xasida gi bi ko si xaj ma li wane mu jël xasida gi wan ko ko pare mu dem ca teggin ya ak yar ba moom sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu ni ko comme réew mi daa bari boromi xam-xam te ndaw ñi léegi amatuñu teggin te xuus géej euh, maanaam féey nga wax te da ci tudd jalam kuy wut wurus ndax wurus du nekk ci kaw wurus ci suuf lay nekk kon tee nga ko def yaa xaaisal baxar wala kon yaa xaaidal bars yaa xaaida mooy kuy féey ca kaw waaye sëñ Babacar Si ni ko dañoo def kon yaa xaa yaa xaaisal baxar sëñ Babacar si borom xam-xam bu rëy boobu la tey tubaarkalla waa juróomu teddoo si xaj mali ni ko si defal noo ko bëggee ak noo ko gisee xam nga ne ñoom ñaar macha allah ñu noonu daal moo tax mu ni Muhammadun Nuuru Abdullah Muhammad Abdoulaye moo ko Abdoulaye mooy baayam Abdoulaye Cheybata mooy baayam Cheybata mooy Abdul Muttalib Abdul Muttalib Hachim mooy baayam Hachim Abdou Manaf mooy baayam Abdou Manaf Xosey mooy baayam xosay kira kilaab mooy baayam kilaab murrata mooy baayam murrata kaab mooy baayam kaab luway mooy baayam luway xaalib mooy baayam xaalib fihri mooy baayam fihri malik mooy baayam malik nadri mooy baayam nadri kinaanata mooy baayam kinaanata xusaymata mooy baayam xusaymata mudrikata mooy baayam mudrikata ilias mooy baayam ilias mudar mooy baayam mudar nizar mooy baayam nizar maaddi mooy baayam ma àdd àddinaa na mooy baayam moo tax eh, yonent bi awoon wax ni bu ngeen limatee ba àgg ci ci àddinaa na na ngeen fa yem ndax lu bare bare ba dafa xawoon rëcc historiens yi ba ñu raxante lu ca bokkul waaye su yonent bi saasam ne yem leen ci àddinaa na moo tax Seydi Aj Malik ci bu jeexal bay bi dafa ne adit nisaaran ma adan na lim nasaar cig lim waaye nag man yu jaawisu àddinaa na soo jéggee àddinaana fatak zibuhu qad jaamil alami ñëw na sag njuumte ñëw na bàyyi ko ci yonent ndax dañu woon bu kenn paase foofu li nga si xajma ni ma amee ma amee gis nga maamam bii ñuy wax ma àddinaana maad li tax moom it mbiram jara waxtaane tuuti benn buur bu saay-saay bu soxor ku ñu wax buxtu nasar moo doon topp arab yi giir yu baax yi raas yu baax yi njool yeeg borom xam-xam yeeg borom alal yi di leen bombardé di leen rey comme ni Hitler meloon dana seet dëkk ko neex rey ñëpp di seet ñu njool ñeeg di wut ay bali baleeg di wut ay ay laadum ci góor ñeeg jigéen ñi ni ñu gàtt ñi daal <laughs> moo dégg dëgg dëgg dégg naa ni dégg naa moom njool woon de Hitler moomu dégg naa lu gàtt la woon waaye daal moom daa xam ne am njool neexoon na ko lool dégg naa noonu laa def di seet gaañu gàtt ñi bu dee <laughs> bu ñëwoon fii bu mooy tuulee tabaarkalla sama classe gii moom yàlla leen yàlla yërëm waaye ndokk mu demee avant ñuy ñëw kon jërëjëf mu ni xam xamlu maadan li Cham armiya zakaru bi nga xam ne buxtanaar mi ngi mi ngi bombardé arab yi di leen rey rey yu métti dañuy ni ku ñuy wax góor euh, euh, góor gu ñu armiya moom la ñu wax ni moo rawale maad mii ci ay dëkk yoo xamante ne ñu xam xeet yi fu mu nekk ndax li annahum ñoom saay-saay yi xurumaatullahi qad xataku dañu doon xotti orma yàlla di rey yonent yi di rey nit ñu baax ñi ñaata yonent lañu rey ñoom nit ñu bon ñooñu gis nga moo taxoon ñu rawale woon ma moomu lay moo tax si xajmaat ni is kaana xaamilu nuur kaana ala xifzil ilaahi bila shakkin wala moom leeruk yonent bi sallallahu alayhi mi ngi foloote ci jiyam boobu di foloote ci ndiggam loolu ca la nekk nag ci sécurité suñu borom ci la nekk ci kaaraange ak suñu borom subhaanahu wa ba kenn mën woon jot ci moom nan da koy jéem a sàkkal pexe suñu xaj ne am na ñu wax leneen nag qiila fal malakaani alxaamilaani bihi am na sax ñu ni du armiya moo ko yóbbu waaye ñaari malaaka ñoo ko sëq tëkk ci laaf yooyu rawale ji ko ba kenn mënatu koo rey ndax boobu lañ doon seet arab yi def di recenser recensement diw doomi diw diw bu ñu xamee ne yow ab arab nga bu bokk ci ñu sell ñi ñu rendi la gas suul ndax dañu bëggoon faagagal askan woowu ci kaw suuf moom mi nag bi nga xamante ni ki yàlla nam mu xettali àdduna bi ki yàlla nam mu defar jamono bi yàlla nammee loolu ci moom ci la yàlla Euh, rawale ko ñu ne ay malaayika ñoo ko rawale ñii ni euh, armiya am na daal ñu waaye daal raw na daal ala kulli xalim si daal ma ne lii ma waxit nag bu leen ko kii bu leen ko bu leen ma ko bu leen ko diingat mu ni za xadiis ibnu abbas axil xakami abdulaay ibnu abbas moo ko nettali nga xamante ni moom mooy doon fóoréewu xeet wi wa waxeef na adnaan adnaana fal mahmuulu waaliduhu wal awwalul aktharul asfa min dana kalami nee nañu nag ma àddinaan lañu yóbbu woon ay waajuram waaye si xaj maa nee na loolu wax jooju wax ju dàqu la li ma la jëkk wax daal ci ni eh, armiya mooy li gën a wér armiya daal moo gën a wér lu waraloon nag mu eh, buxtu nasar eh, is is niiraanuhu xamudat rëddal maadan ila axwaalihi karami bi ñu ay wa jeexee geer ba fal xooba pëcc xooba ci lañu ko delloo nañ ci ay mbokkam wuhum te ñooñu noonu baqaaya wulaatul baytil xiina xiina isin ñoo ñooy des nag di donnante leer ga te jooja jamono di takkante ci xeet yu baax di jur ay doom yu baax di nekk ay tànneef di nekk ay tànneef ndeysaan di séyante ci seen biir ba ni yàlla dogalee tey mu bokk ci giir Quraysh googule mu ne fa tegg wax ci nag di commencé indi nose ak bokk moom Seydi Hajji Malick mu ni yonent bi sallallahu alayhi ci biiri bokkam la yàlla yónni ci biiri bokkam lañu ko weddee waaye ay bokkam itam ñoo ko jàppale ndax bu dee li ëpp ci bokk yi dem xeex nañu ko waaye am na ñu am jom ci benn parti bu ko jàppale ba tey mu taxaw ñooñu bokk nañ ci xulafaawul arba Aboubacar Omar Ousmane Ali ñoo ci gën a siiw xëy na bokk ci ñu njëkk a tuub waaye ñu topp ci seen ginnaaw tam gàcce ngalaama jàppale nañu ko ba xaw a dab sax ñi nga xamante ne ñooy fawdu bu njëkk bi radiyallahu taala anhum si daaj ma nee na mbokkom gi mu mbokkoo ak Ousmane Ibn Affan dafa ni laqab nu affaana fi mughiratin wa atiqan inda murrata bi kaabihimi ama aliyun bila shakkin qad iltaqaya bi sheybat alhamdi zil ifdaari walhimami si daaj maa ngi nee na digganteem ak Ousmane Ibn ñu ngi daje ci maam mu ñu wax Muxiira Muxiirata foofu la daje atiq mooy gor sa te yan te daan goreel muy abubakar sadiq nee na ñu ngi dajee ci maam mu ñu wax murrata murrata ma jur kaab nee na nag muy omar ibnul xataab bi tàqale digg ak caaxaan nee na ñoom ñu ngi dajee ci seen maam bu ñu wax kaab kaab lu way xaalif fii kon ñoom ñëpp ay bokki neen lañ mu ni bu dee ali yu nag bila shakkin amul sikki sàkk ni ñoom ñaar xalil taqayaa ñoo ngi daje bi shaybatil hamdi ci abdul muttalib ci abdul muttalib mu ngoog euh, aliyu ak yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi dajee ak ak ak ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom mook aliyu ñu ngi bokke ci shaybatul hamdi te mooy abdul muttalib abdul muttalib nañ ci ñëw ci kanam tuuti abdul muttalib moom shaybatul hamdi la tudd ndax dafa judduwaale bi jaaw nekk ku ñu sant nekk ku baax ku suupul ku serviable ba amoon a tur daal te muy nekk ndaw am na lu ñu leen jox barke démb yaakaar naa déglu ngeen ko ni ki noonu it euh, Abdul Mutalib moomu moom moom euh, moom Seybala li tax ñu tudd ko Abdul Mutalib Talib mi jur Aliyu mook Abdullahi bi jur yonent bi sallallahu alayhi ñoo bokk baay Abdul Mutalib mi mooy seen maam zil ifdaali wal himami ali mi nga xamante ni mooy borom xéewal ya ak borom pastif ba si xaaj maa ngi nee na amal buxuuru lisa lil asdaafi fasga ndaal géej yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi jur bonkal yi ngand yi di wurusi galak di di wurusu gal nee na fasxa xerawlul tuuti ila tartibihinna ma ñëw toftale leen tulaaqi di nga daje xayra mutasimi gën ngaa rafetug nose yaayi bàyyi la la bëgg a wax kat yaayi bàyya moom la la bëgg a wax Sidi Hadj Malick radiyallahu taala anhu yaayi bàyya moom la la bëgg a wax maanaam ñi mu tudd li ñëpp wax ku xam wax naa la fi ñaar fukki maam ñaar yoo xamante ne ku ci nekk wax na la ku la jur ak koo jur ci góor wax na léegi ku ko ku la jur dinaa ñëw léegi wax la ni ku mu tudd ci maam yi rek ñaata doom nga am waaye nag seen yaay yi leen jur moom la bëggoon lim léegi mu ni fa hunna fatimatun salma wa aatikatun xubbe wa fatimatun hindul xunna simi waxshiyatu bintu seymaana wa maawiyatun bilwaawi wa salma wa layla uddalam tulami minhunna jandalatun laa tansa aatikatun wa barratun suma bintu saadin zilkarami salma wa layla rabaabun sawdatun wa muaawinatun wa muaanatun wa mahdi duil abyaata tëni bi may daal kenn xamul lan la rek gis nga way wi da koo toftale ngir rek mu daajkat yi ñoom Abdou Aziz Mbaye ñoom ñoom ñoom duut kenn da suñ ko dee daaj euh, wësnu bi day day day tombe wësnu bi ci boppam maanaam euh, nattuwaayu way wi peese way wi ndax way bu manqué benn araf rek wala mu ëpp benn war araf di nga bëgg daaneel te doo daaneel te day yàq way mu ngoog moo tax mu mu nose ko nii waaye gis nga dafa ni yaayi baay ya ñii ma la doon wax léegi daana wax abdullahi shaybata xaasim abdu manaaf xusay kilaab euh, murata kaab luway xaalib fihr malik nadar kinaanata euh, xusaymata mudrikata ilias mudar nizar maad adnaana ñii la wax ni ñooy ñaar fukki maam ak ñaar yoo xamante ni wala ñaar fukki maam yi boo ci génnee eh, yonent bi salaam ak eh, baayam eh, muy ñaar fukki maam yoo xamante ni lay wax ni booy lim bu ko paase. waa koy ñii la la bëgg a wax seeni yaay waaw seeni yaay waxoon naa la keroog seeni doom ñoom ñi nu jur bu fekkee xaj na fi moo xaat la ko ngir nga mën a comprendre da nga naan shaybata muy Abdul Muttalib mii ma la doon wax nga xam ne moo jur Abdullahi mu jur Yonent bi sallallahu alayhi yaayam moo tudd Salma Shaybata Haashim moo ko jur Haashim yaayam mu ngi tudd Aatikatu euh, Haashim Abdu Manaaf moo ko jur Abdu Manaaf yaayam mi ngi tudd Xubbe Abdu Manaaf Xusay moo ko jur Xusay yaayam mi ngi tudd Kilaab mu ngi tudd waaw mi ngi tudd Faatimatu <laughs> xusay yaay mi ngi tudd Fatimatu xusay kilaab moo ko jur kilaab yaay mi ngi tudd Hind euh, Hind euh, maanaam mooy jur kilaab kilaab murata moo ko jur murata yaay mi ngi tudd Waxshetu bintu Seybaan Waxshetu bintu Sey Seybaan la yaayam tudd murata moo jur Kaab Kaab yaay mi ngi tudd Maawiyatu Kaab moo jur Luway Luway yaay mi Salma que Salma bi jur Shaybata bi jur Abdullah bi jur Yonent bi sallallahu alayhi Salma bi jur Luway euh, Luway moo jur Xaalib Xaalib yaay mi ngi tudd Layla Xaalib moo jur Sihr Sihr yaay mi Jandalatu Sihr moo jur Malik Malik yaay mi Atikatu gis nga kon waxal na la beneen Atikatu Hashim bi jur Shaybata muy Abdul Muttalib euh, yaayam tudd Aatika la tudd moo tax ñu ci bunt bi moo gën a jaafee ci bunt yi ndax tur yi dañoo bari te góor gi ni mu ko tënkee euh, bu la ko mag tëralul rek boo muy tulee doo ko mën a teqantal moo tax mu mu doyo kéemtaan euh, moo ni Malik Nadar Nadar nadar ne yaayam mi ngi tudd barra barratun la yaayam tudd euh, kinaanata moo nadar moo jur kinaanata kinaana yaayam mi ngi tudd uyaynatu bintu saad zelkarami may borom mu tàdda nga euh, xusaymata nadar moo jur kinaanata kinaanata moo jur xusaymata xusaymata moom yaay mi ngi tudd salma ko xanaa ñetti salma mudrikat yaay moom tam mudrikat moo jur Ilias yaayam mu tudd layla euh, mudrikatu moo jur Ilias Ilias yaayam mu tudd rabaab Ilias moo jur mudar mudar yaayam mu tudd sawdatu mudar mu jur nizaar nizaar moo jur maad moo maanaam euh, mudar moo jur nizaar nizaar moo jur muanatu yam mooy muanatu moo ko jur laa bëgg a wax muanatu mooy yaayu nizaar nizaar moo jur ma maad yaayu moo tudd maad loolu si haj Maalik radiyallahu anhu tënk ci eh, bunt ba ne yaayi baay ya yaaye bàyyi yi ñu tudd nit ñi gaa yi firi nag dañuy départ ci Mouhamed Abdoulaye Saybata Haji Nour Abdoulaye waaye yaaye bàyyi itam dafa neexul sànjaaf moo tax gàmmukat yi koy laal bariwul moo tax mu ne fa hunna ma wax la yaaye bàyyi yaaye bàyyi mu départ fatimatu salma wa atikatun xubbe wa fatimatu hindul hunna simi waxshiyatun binta saymaana wa maawiyatun bil waawi wa salma wa layla uddalam tulami min hunna jandalatun la tansa atikatun wa barratun suma bintu saadin zil karami salma wa layla rababun sawdatun wa muanatun wa mahdin duil abyaata tëgtanimi kon baay yaa ngi noonu yaa yi jur baay yi ñu ngi noonu maami maamaati maam kon loolu doon wax ci jigéen ci kotu jigéen ñi ñi nga xam te ne ñoo meññi ñooñu le ma ngoog léegi nag ñu ñëw kon ci ci ci fàttali rek ñi nga xamante ne nii ñoom la bàyyi bàyyi ñuy jur kon ñi leen jur wax nañ leen maanaam ñi leen jur ñi jur maamam yi jur ay bàyyi baayam wax naa leen jigéen ñi léegi mu des nag ñoom seen wàllu bopp ñan lañu jur muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdullahi la baayam tudd baayam abdullahi mii nag benn doom la am mooy taaw di caat mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi yaayam aminata benn doom la am mooy taaw di caat mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi nii la deme fala yam ku am mag Moustapha du sa morom ku am rakk Moustapha du sa morom kuy ñu la kon moom képp càppaaculi bete bete ci yaayam moom dong la ashrafil xalq yaayam baayam bi jur abdoulaye mooy abdul muttalib amoon na fukki doom yu góor ak juróom benn jigéen fukki doom yu góor ak juróom benn jigéen moom abdoulahi abdul muttalib bi jur abdoulaye ba ca jëkk mooy abdullahi mi jur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu gën ko xam ci abdou manaaf zubayru xaaris muqayyim diraar xijlu abo lahab mooy abdul uzze ñii mooy fukki doom yi nga xamante ne abdul muttalib mii juróon na leen ak juróom benn jigéen juróom benn jigéen am na leen ba ca jëkk mooy safiyatu albaydaaw umaymatu arwa atikatu barratu ñii abdullahi abdul mutalib bi juru abd abdul mutalib bi juru abdullahi bi jur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii kon ay bàyyi lañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii bàjjen lañ ci moom kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na juróom benn bàjjen yoo xamante nii ñoo bàyyam ñoo bokk benn bàyyi ka ca topp mooy haashim haashim amoon na ñeenti doom yu góor mooy Abdul Muttalib ak Seydu ak Abu Sayf ak Ashifaawu ak Xaalidatu ak Roqayatu ak Xayatu ak Daifatu nii moom la Xaasim jur Abdou Manaaf muy Abu Taalib Abdou Manaaf moom ñetti góor la amoon ñetti góor la amoon mooy Haashim Abdu Sams Saybata te mooy Mutalib ñii la amoon seen yaay mooy Atikatu bunt Marra Xusay ñetti góor la amoon ak ñaari jigéen Abdu Manaaf Abdul Uzze Abdu Daar ak Xusay seen yaay ak ñaari jigéen ñaari jigéen kenn ki mooy tax muur ak barra ka mooy kilaab kilaab am na ñaari góor ñaari dëkk yi mooy xusay ak zuhra zuhrata seen yaay mu tudd fatimata bintu saad ka ca topp mooy murrata amoon ñetti góor kilaab taymu ak yàqasatu ñii la amoon euh, yaayu kilaab mooy murra mooy mooy hind mooy hind tey mu ak yàqasatu jigéen ñu baari baari baari xatu moo leen jur kon ñaari soxna la ñu jurandoo ñu doon nekk ak góor gi ñoo am njaboot yooyu ka ci topp mooy kaab kaab am na ñetti góor ka ci jëkk mooy murrata adiyu ak xusayf seen yaay mooy waxsatu bindu saybaan ka ci topp mooy luway mu looy am na ñeenti góor kaab amir awf ak usaamatu seen yaay mooy muawiya muawiyatu kacta mooy xaalib xaalib am na ñeenti góor <clears throat> muxaaris xars euh, azad ak xaarisatu ka ca topp mooy fihr fihr moom maalik la am yaayam mooy jëndalatu fihr benn doom la am yaayam mooy jëndalatu ka mooy nadr nadr ñaari doom la am maalik ak yaqasatu maalik ak yaqasatu rek la amoon ñii nag dañuy wax ni li dale ci nadr ak xusay mii jëm ci yentu yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñi si des jëm ci kaw mën nañu leen dàkkante la Quraysh mën naa am nuy arab waaye nag bokkuñ ci Quraysh Quraysh daal xëy na dañ ne am na maam bu tuddoon Quraysh ñu askanale ko xeet wi comme mm, ci sunu dëkk bii maanaam ku santoon tey euh, Cissé ñu ni Cissé Cissé Kounda walla Ndarame Kounda wala Mbayeen dëkk ba la ca mbay mbay suñu dëkk boobu kon nag doolu daal moom moo tax Quraysh mi ñu tudde ko dàkkantele ko ko mu ngoog Kinaanata moo ci topp Kinaanata amoon na ñeenti doom ko ca jëkk mooy Nadr Malik Abdu Manaaf ak Mulikaan ka ci topp mooy xusaymata xusaymata moom amoon na ñaari doom asad ak asjatu mu ngoog kinaanata moo ca topp seen yaay moo tuddoon uyaanata uyaanata bintu saad ka ca topp mooy mudrikatu mudrikatu moom moo jur Ilias yaay moo tudd Layla mu ngoog ka ca topp mooy Mudar Mudar nag moo jur Ilias Ilias moo jur Aylaan ak Mudarul Hamra bi ñu la doon <clears throat> wax barke dem nga xam te ne moo yoroon secret mbir ya secret kër ya ki mooy Nizar Nizar moom moo jur Mudar maanaam moom ñeenti doom la am nisaar doom ji ñuy wax mudar ak rabiatu ak Ilias ak almar ka ci topp mooy maad maad nag moo jur adnaana adnaanan akaa la jur ak maad mu ngoog ñii ñooy maam yi kon wax naa la yaay yi baay ya wax naa la tam yaay yi jur maam ya wax naa la ndan maam ya ñanu jur kon lii moo tax Sidi Hadj Malick ni yaa xaisal bahri lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ala min al jalami yow mi nar a xuus géej naan yi yaa ngi dem nee jaratu ko bul dem bul dem toogal fii toogal fii ma wax la maami bi ba nga xam ka xamin woo xam ni moo gën a sell moo gën a wér te kenn du la ci jam léegi nag ñu ñëw kon ci néegul ndeyam yonent bi sallallahu alayhi ku am néegu baay di am néegu ndey si xaajmaa ne na aminatun bintu wahbin ibnu abdi manafin ibnu zuhrata umul mustafa alalami ibnu kilaabin qul fiihi intisaabuhuma aatikatun qiila hindun ummu wahbihimi xaaj ma yal kenn du mooma si jaaj maa ngi nee na radiyallahu taala anhu aminatu soxna suñu wax aminata bu doon ñun aminta la ñuy wax soxna suñu wax aminta wala aminatu ñii nag amina la ñuy wax ak amina ay minaak ay miyaag yu kenn dul xam waaye aminatu bintu wahbin mooy yaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si xaj maa nee na aminatu bintu wahbin ibnu abdi manaafin wax bi mi abdu manaaf moo ko jur gis nga dafa ni bëri rek bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ibnu zuhrata ku wax zuhratam moom it moom mooy maami mooy mooy mooy maam ju jigéen ju jur Abdu Manaaf mu ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Aminatu bintu Wahbin gis nga Wahb ak Wuhayb ñoo bokk ndey ak baay Aminatu ak Alatu ñoo bokk ndey ak baay gisal Muhammad sallallahu alayhi ak Hamzatu ibnu Abdul Muttalib gis nga Hamzatu bu dee ci niigu baayam bàyyi la ci moom bu dee ci niigu yaayam mag la ci moom ndax su ma juumulee ma teqatal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baayam Abdullahi kere ba mu ba ko Abdul Muttalib nee nañ dem ma takkali la soxna mu ànd ak moom dañu dem ba ca yoon wa xam naa dama koy anticiper mais du ñàkk daañu ci dellusiwaat. bi ñu demee ba te yoon wa ci lañ dajeeg yeneen jigéen di ñuy wax Faatimat tabxil ma maala ilayha waxelem turam yi mu xool leeruk Abdullahi gi yëg ni kii kat am na lu mu àndal lu ne ci moom loo xamante ni mardi taalima subaana ci la ko woo ba mu ñëw nag ñu ko daal gis naa ni kilifa nga àndal waaye yittewoo naa la bëggoon xamit loo bëgg ci àddina ma defal la ko te nga ñëw ànd ak man loo bëgg ma defal la ko maanaam daal xiital la ko j'ai envie toit comme ni ko salixaa defe woon ca yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam ñëwal daal ma dénkal sama bopp loo bëgg defal mu ne ko amal xaramu fal ma maatu dunahu lii nga may woo ma dee wuute ko moom a gënal tabaarakallahu loolu mooy li am solo mu ni ko muhammadun muhammad moomu bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu ko mayee ba pare moom aminatu maanaam bi ñu mayee aminatu abdullahi mbokk yi daal ni ah aminatu mii kat doomu baayam a ngi fii ci kër gi ndax wax bi moo ko jur te wax bu waxay bu mooy magam kon takk nga doomu wax bu waaye wax aalatu mi itam amul kenn boo gisee ku ko bëgg Abdul Muttalib bi ngeen ne moo ñaanal si baayam daal di mayit ku ma may ma jël di mayit bëgg naa di ñu woo ndaw si ndaw si may itam samay kilifa laa am fu ñu ma dugal rek ma dugg fa ñu daal di koy may ñu may doomam jabar mayaale ko jabar kooko moo jur Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki taxoon nit ñi jóg waaye kii itam nga xam ne ginnaaw bi lañ ko mayee eh, moo jur Hamzatu ibnu Abdul Muttalib moo jàmbaar ji nga xam ne moo tëdd ci Uhud yéen ñu ci bari dem màkka tabaarakal dem ngeen Uhud gis ngeen barab ba fu mu tëdd ma nga tëdd ca digg ba sayyidu shuhada waaw lay ndeysaan yal na ko yàlla fayal mënoo mbàkki si la ndeysaan mënu fa dem mukk te daanuwul jël waaw ay jooy ba nga yërëm ko ndeysaan ndax la muy yëg foofu moom rek moo ko xam ay jooy ndeysaan ba nu koy mujj di jàppoo di ko génnee ndax ku ñu jàngal maanaam ku ñu wax képp ku ñu wax ustuwaaru Uhud su fekkee am nga yëgukaay rek faw nga nga nga nga nga jooy yàlla nañ fa daje ren dajeeti fa dajeeti fa dajeeti fa tey ànd ak yéen rek yéen ñëpp incha allah yàlla mën na ko yàlla ko yàlla defal ma ngoog tabaarakallaahu mu ñu ko nag abdullahi mi jur muhammad sallallahu alayhi moo ko xamsatu ñoo bokk baay waaw ñoo bokk baay Abdul Muttalib mooy leen jur moo tax umul Mustafa al yaayu Mustafa ma ñu xam al alam dañ naan Mustafa sallallahu alayhi wa que waa kaw ak waa suuf fan lañ ko gën miine fan lañ ko gën a miine waa kaw ak waa suuf fan lañ gën a fan lañ gën a miine yonent bi sallallahu alayhi doo sax doo ko sax xam ndax ni muy xettalee ca kaw noonu lay xettalee ci suuf ni ñu ko yónnee ci nit ñi noonu ko yónnee ci jinne yi moom rek tabarakallah ni ñu ko nit ñi gëmee noonu la ko jinne yi gëmee noonu la ko njaay àll yi gëmee noonu la ko ñëpp gëmee ba ci jën yi ci biir géej sax noonu lañ ko gëmee sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni ibnu kilaabin ibnu kilaab xul intisaabuhuma fiihi kilaab mi wax bi mi baayu aminata yaayam mooy aatikatu ñii xiila nee nañu hëndun hënd mooy yaayu kilaab mii um wax bi mi mooy yaayu wax bu wax bi nga xamante ne moo jur aminatu wuhaybu jur aalatu dañuy wax ni aatikatu mooy seen yaay ñii ni déedéet jigéen ju wax hindu mooy seen yaay waaye daal lu ci mën a xew rek ñoom ñu ngi day ci kilaab nga xamante ni tabaarakallaahu seenu bokk sor yowul da nga naan rek daal di cay agsi si haj maa nee na wa xayra zalika qaalu kaana sayida qawmihi kama wax leneen parce que wax mi nekkoon na ko baax nekkoon na kenn ci ab ci jamonoom ci dimbalee ci uufaate xettalee uuf dalal xele ñi ragal fat ñiy daw leel ñi nga xamante ne ñooy ñoo xiif aar bu néew ji doole yi nee na kama jaana fardan li asrihim yi kenn dong la woon ci jamonoom foo ko tudde rek ñëpp tabaarakallaahu xam ni ku baax nga tudd ku lewet nga tudd jaamukatu yàlla piir moom nga tudd looloo tax mbokk yi am lu baax ñaare di nga gis nit ku am lu baax bul ko di bul ko xeex ndax ñaare lu baax fa ñu koy fàggule nit ki loxo du fa joti bari na ku am teraanga nga iñaane ko ca teraanga ja fekk na ba ka ndeyam di liggéey xëy na booba mën naa am yow sa ndey boobu xëyul wala gontul wala boog sax ma nga te leneen waaye li nga gis doom ju yaayam xëyal gontul ko dabu ngërëm way juróom baayam ba baayam gërëm ko ay waajuram gërëm ko yàlla di ko di seral ab xolam ci jox ko doom ju baax yow kenn xëylu la wala kenn gontul wala sa wàll ñëwagul nga bëgg a taxaw nag di xeex ko nga xamante ne ndeyam xëyal na ko démb tey door a ñëw ah, da ngay sonn rek mbaa soo baqate na ci biti waaye doo ci mën dara loolu daloon na nitu yàlla ka aarif billah mawlaana Cheikh Ahmad bàmba xaadimu rasul xaadimul Mustafa xam ngeen ni bu woon ak liggéeyu ndey ak ngërëmu way jur ak pasteef ak jeex tàkk ci boromam kon noon ñi daañu am bunt ci moom ndax fa ñu ko làqi woon ak fa ñu ko denc woon loxo jotiwu fa woon waaye dara jotiwu fa woon booy li nga dégg ñu ne isa zakat sarikal ma biita wa sarikal lamir wa sabuta suñ doon nee na su lu ma muñ muñ muñ rek ak lu ma góor góor góorlu su fàttali ko ñetti fan ndakaaru yi rek du ma du ma xalaat lu may jël gobar rek fa jiyaar waaye nee nañu yaay ju baax yaay ju yiw mooy maam jaariyatullah bu mu ne ba commencé filtré woo ko xalaat leneen dégg naa ñu ni sa maam jaar ko feeñu ñu ko jaaral fi nga dem liggéeyal sa boroom laa wax jaaral fi nga dem liggéeyal sa borom gis nga moo tax léeg-léeg ngay xeex nit complot daje li nga am lépp ci doole mooy yi nga am yépp nga nga nga nga utiliser ko defe ne defe ne moom ngay daaneel wala moom ngay yàq fekk sa bopp ngay ngay suul rek fekk sa bopp ngay suul rek moo tax ku ñu séenati moom teraanga rek booyee boo ñu bàyyi ko teraanga ja te ñaaral ko yal na mu ak moom fu baax te nga ñaan sa borom tam yow yal na la yàlla may waaye du fi amee nangam du fi amee ah yàlla day kenn nag di weddi ay waxam di la jox dëgg ma ngoog kon yi fi a ngi noonu mbokk yi baay bu baax baay bu gore baay bu yiw muy Wahab Wahab ak bu ñoo bokk ndey ak baay Aminatu ak Alatu ñoo bokk baay Hamzatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu bokkee ci ndey noonu lañu bokkee ci baay moo tax Hamza yon bi sallallahu alayhi jaraloon ko lu nekk kenn du woon laal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko laal gis ko kenn du ko woon laal Hamza ibnu Abdul Muttalib ak baax te am fit Seydi Hadji Malick nee na radiyallahu taala ma wax la nag wa barratun ummuha ay ummu aminatin ummu habibin fa ummul barratul karami nee na barratu ummuha mooy yaayu amina ay li ma ci namm mooy yaayu amina ummu habiban um-, ummu habibin fa ummul baratul karami ummu habib mooy yaayu barata mu tedd mi jur aminatu mu wax ne wa baratun bintu awfin baratu bintu awf ummu ummi xabibin mooy yaayu yaayu xabib bi bi mooy yaayu yaayu ummu xabib bi jur barratu bi jur yaayu yonent yàlla Muhammad mooy aminatu si xaj maa ngi nee na laa tasal daayiman fi l baxsi wal deel bul dañ mukk di di gëstu ak di leeral ba mu leer ndax aw askan soo ko dee leeral te te maîtriser woo ko wala nga koy leeral te teqantal ga des mën ngaa sànq askanu jaamur wala nga sànq réeral xam-xam wala yu ne mel moo tax laa tasal bul dañ mukk daa iman ci gëstu daa iman mukk abadan fil bax si gëstu wala ximami ak pastif toujours na la ñor na la intéressé mu ne wa fi qusayin liqaa'ul Mustafa ma barratin ci maa muñ wax qusay la aminatu daje ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ummu Habibin ak yaayu ummu Habib mi nga xamante ni moo jur barratu bi jur Amina nee na bi ittifaaqihimi boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci loolu nee na wa baratu bintu awfin wa liqaahu ala kaab baratu bintu awf bi itam mi ngi dayeeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ci maam muñ wax kaab nee wax xarir na nga xereñ ñawal de wala tudic bul réeral mukk li xaqihim seen askan ba waxe ko loolu noonu si xaj maa nee na taraahu fi kulli taqdaari fi kulli taqdiraatihi nasaban sariha fihrin qurayshin min xilaafihim taraawu fi kulli taqdiraatihi nasaban sariya firin qurayshin min xilaafihim salliyan yaa ilaahi wajsiyan abadan anna muhammadan muxtaar fil qidami <laughs> abdas bay kenn du moomu kenn du ma waay waay gaa yi billaay ku dégg way ba defee ni man ngaa way ba tax nga dugg ci la dana metti ci yow ku nekk la la yàlla may waaye Abdou Aziz Mbaye na ko yàlla bàyyi si kanamu njaboot gi te yàlla bàyyi kook baatam moom moom duut kenn daag mag ñi maanaam ëttu këru diine yëpp ña fay nekk di yëkkati xës day mag ña di bégal xoli jaam ñi yal na yàlla wattu leen te taxawu leen te daj seen poos dara te ñu gudd fan yàgg fi ay message lañu gis nga woy li muy def ci message ni booy déglu way ni ngay gaawee déglu ni la message bi gaaw a duggee boo ko doon toog di nii ñuy def nii di wax naan di waxtaan dana yéex a dugg daan la déglu rek waaye daaj moo am solo moo tax mag ñi daaj ñépp ñoo ëpp taalibe ñi daajul <laughs> mu ngoog kon nag yi fi ngoog mu ni si daaj ma ak nee taraaw di gis fii kulli taq daa fii taqdiraatihi nasaban mbooleem toftale di gis ci famille askan wu jub wu leer sariixa fihrin mu leer nañ jëm ci giir fihr ànd ak waa Quraysh mu leer nañ ku neex a tagg la ndax biiram daa leer bitam daa leer ci ndey ci baay ci jikko ñëw door a ñëw mu ni lillaahi si yaaj maa ngi nee na maa darrun ci mbaax goo xamante nii lës ka nga xam ne moo ko wax xat xaala maa di xaxu mooy ka doon tagg mbaax ga mu wax ci moom te mi ngi ci ñëw mu ni jazaahu mawlaahu xayran xayra munsarimi yal na ko yàlla fay yiw fay ko yiw wér woo xamante nii du dakk mukk mukk mukk mukk ba abadan mu ni waaw lan la wax mu ni fal urbu xayru unaasin suma xayruhum quraysuhum wa fihim xayru xayri xayruhim mu ne xeet yépp araba ci gën tedd nit ñëpp araba ci gën tedd mel na benn waykat moo ko wax si xaj ma neen benn waykat moo ko wax nee na ci biir arab googu giir gi ci gën mooy giir quraysh te giir quraysh yi ka gën ca ñoom gën ca ñoom mooy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni wa baratun bint awfin ummuhaa fa umaymatun xilaabatun umm haadihi ixtanimi xaaj maay nee na barratun barra ummuhaa yaayam xul neel ummu dabbata mooy yaay dabbata ku ñu wax dabbata moo ko jur nee na lubunaa jigéen jox lubunaa dabbatun ak lubunaa nee na ñii arbaaun ñeent lañ ñoo xamante ne min xayri min xay min xayri fihri ci giir fihr ay arab lañu waaye bokkuñ ci giir quraish jërë ngeen jëf mbokk yi kon nag mbokk yaa nga ngoog ñu teg foofu suñu baaram incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.